ñëw Ndingler comme ni ma koy defee si yeneen dëkk yëpp euh, ñëw nemmeeku leen ñëw aussi euh, waxtaan ak ñoom mais aussi ñëw indaaleel jigéen ñi loo xam ne mooy euh, benn moulin à mil indaale aussi gannaaw bu ñu leen appuyer ci seen mosquée pour une pour cinq tonnes indaale aussi benn kit pour kit sonorisation ak mosquée donc tey aussi dinañu permettre ñu mën a waxtaan ak ñoom Euh, mais aussi gën a déglu seen soxla comme niñ koy defee fépp parce que dañuy waajal mairie bi ci ay fan yu néew bëgg nañ bés buñ fa yeggee naam am na lu ñu xam ci dëkk yëpp waaye dañuy toog waxtaan ak ñëpp déglu leen bu ko defee programme ba nga xam ne moom la ñu def euh, pour population bi ñu ñu gën koo ñongal ba nga xam ne bu ñu yeggee ci mairie bi du ñu fàtte benn doléance bi mooy fukkeelu machine ak juróom-ñaar loolu ci jàppale jigéen ñi parce que jigéen ñi comme ni nga ko déggee dañuy jóge fii ba Sandiaga wala Ndiaganiao pour wàllu

mais également machine day def koom-koom donc dina leen jàppale tuuti ci koom-koom. Ndingler dafa am problème foncier suuf boo xam ne ñëpp xam nañ ko Sénégal même à travers le monde muy soxla bu mag muy soxla bu mag ba nga xam ne ba ñu nekk gulee maire sax ñu ngi ciy dox chef du village fàttali na ko sànq bu ñu demee première rencontre ak sous-préfet man maa ko initié ñu toog ak sous-préfet waxtaan ak moom si nu ñuy defee ba ba béykat yi mënaata béy ak yeneen démarches yu ñu def yëpp wax na ko. dem nañ fi Dakar ministre na ñew nañ fi def nañu rendez-vous ak ministère de l'intérieur vraiment di suivre processus bi te lolu vraiment tant que comme nous ko waxé ñom sen luñu soxla moy ñu fexé ba jot ci souf si luñu mëna dox nak bu ñu nekkee maire inshallah dinañ def lepp pour gungé len ba ñu am satisfaction si sen souf sos nga xamné dañ ko bëgg ñu mën len ko bayil ñukoy bay donc lolu suñu soxla la tamit lu luñ ci mënta dox dinañ ko ci dox pour ñoom ñu mën a am satisfaction ci seen soxla boobu.